ay avocat lépp lu ñu def dañ leen di jox cër ba ca war ci beneen dossier bu maître El Hadj Diouf bi nekk am na leneen déggu leen kenn wax parce que nangu nañ xam nañ ni que hors des avocats ils sont autonomes rappel euh, renvoi bi gën a gudd bi mu am ci suñu procès un mois ordre des avocats moo ñëw wax ak juge bi ci affaire boo xam ni retenir nañ ko ba pare ñu nangu kenn dégguñu ñu wax parce que dañoo respecté kuréel yi téye réew mi wàññi leen wàññi suñu réew la wàññi leen doyadil suñu réew la euh, gàkkal leen gàkkal suñu bopp la mais moom boppam rek moom boppam rek moom bu juge bi àttee juge bi baaxul mais loolu nag day jeex te bu defee nee ni rëcc na rëccul rëccagul de jeexul de waaw affaire bi am na deuxième mi-temps parce que li ñuy wax lépp ay wax yu dul dëgg la dégg naa leen ñii naan non Mame Mbaye li muy warante mooy police ak gendarme police a ko jàpp gendarmerie jàpp ko rapport ba ci deuxième mi bi donte amatul droit man may naa la droit boo ëndee rapport bu dul sax bu IGF boo indi bu wax ni que man def naa lu dul yoon sàcc naa alalu askan bi ma dem ci kaso bi yow ñemee woo wax loolu ca boo ma ko waxee man man ma génn lu la yóbbu yow wax dëgg dafa jot ci réew mi waxante dëgg dafa jot ci réew mi naxante ak naar féq ak ragal dafa war a jóg ci réew mi benn nit mënta toog li mu def ci àddunaam yépp ci ay fen la ko sampe yow laay njëkk a jël seede assemblée nationale ba ngeen nekkoon plus fort reste la fa duggee wax ji di tax yéen yi ngeen xam ni actualité moo leen intéressé ak peut événement ak lu luy indi buzz li mu njëkk a def mooy wax ni que député du fay impôt muy ay feni kese képp kuy député xam ni ay fen la Sénégal ñëpp xam ne ay fen la mais nit ñi ñenn ñi rus ko wax ni que lii da ay fen la ñenn ñi ragal ni que dina ko bu buñ ko yóbbee lii da leen ci dal lii ay fen la mais foofu la commencé ci ay fen la commencé ascension Ousmane Sonko ça a commencé par le mensonge et sa va se terminer par le mensonge déclaration bi du njëkk a def bi ko nit ñi naan député bi kan la leneen la leneen la déclaration boobu mooy fii assemblée ñun moom ma nga fa inspecteur des impôts la mu ni député yi duñ fay impôt réew mi yëpp xam ni du dëkk mu jóge fa daal ni député day nañu jox 10 millions mu joge fa jiiñ bàyyu jàmburu 94 milliards mu jóge fa dem négocier pour nangu donc moom addinaam lépp ci ay fen lu ko yóbbu tey alhamdulilah man établir naa ci dëkk ak këyitu tribunal ni ka fenkat la parce que yéen ñëpp seede ngeen mu ni rapport moo ma téye rapport boobu moom mu ni mu ngi ci loxoom mi ngi woon sax ci téléphone ba tey jii nii génnewul rapport mais dafay wane leneen ci mbir mi ni ko jàngul walla bu jàngee tamit xamul bu xamulee tamit nit ku bon la parce que nit ku bon mooy xam dëgg xam li mën a nekk di wax safaan wax li mu njëkkoon a wax moo gën a yanu maanaa ci ku jàng que rapport IGE moo ma jàpp moo gën a yanu maanaa ci ku jàng parce que IGE mën na def rapport jàpp ma mais IGF mënuma jàpp parce que bokkuma ci champ d'activité te moom def na quinze ans impôt et domaine moom nee na ENA la génne moom nee na ministère des finance la bokkoon kon mënta bañ a xam loolu. mënta bañ a xam loolu loolu di indi beneen firnde pour wax ak ñi nga xam ni dañ koy topp ca naan xaw ma mu sell mi ca yàlla rek tax donte mën nañ ko def de bonne foi tey ci kàttanu yàlla am nañ firnde ne ba Ousmane Sonko du waxkatu dëgg tribunal àtte na nee na du wax waxkatu dëgg diine ji tax ñu topp ko ak bi tax ñenn ñi yaakaar ko nee na. ku ñu mës daan ci ñàkk wax dëgg ci kuréel lu mel ni tribunal matatoo seede ku matul seede ci lislaam matoo njiit ku matul njiit doo laaj réew mi kon donc yéen ñi koy défendre ca naan yàlla moo tax waxuma nag ñi yam laxdar yu ak risaala rek du werante borom kii ñu jàng laa wax dem leen diine ku fen ñu établir ko kuréel dëggal ni que kii wax na dara ca fen la matatoo seede mënatoo nekk témoin ci dara diine dàq na ni yow mën ngaa seede dara tey Ousmane Sonko bu dee ci diine lañ ko teg matatul seede ku matul seede doo jiite ku mënta jiite doo jiite réew mi moom bu jàppee ni que garde na éligi éligibilité diine dàq na ni que mën naa jiite bu jàppee ni ni que tuumaal baayu jàmburu jëkkëru jàmburu yaay jàmburu ba pare di dàqante ci ay gër di football ak naan ay dem naag demuma woo ay nit ba ay nit gaañu ci bu jàppee ni que rëcc na ci loolu garde na éligibilité gardewul ngoram donc tey Ousmane Sonko fenkat la Ousmane Sonko amatul ngor Ousmane sonk amatul dignité foofu lañ toll tey loolu moo tax ma sant yàlla parce que man dimbali naa sama njaboot ba setal sama der dimbali naa sama soxna samay xarit samay àndandoo samay rakk ñi ma àndal ñi ma wóolu bañ xam ne ko wax ji amul waaye tamit dimbali naa sama réew bañ gis ne que kii ñu yaakaar du waxkatu dëkk ak ku mën a far ci moom ak ku mën a bokk ci moom ak wàll boo bokk ci moom tey Ousmane Sonko waxul dëgg léegi nag danaa tënk tuuti jox avocat yi bu fekkee ni que am ngeen lu ngeen di laaj damay fàttali ni que am na ñu bari ñoo xam ni ci ci bëgg lu baax ak bëgg jàmm dañoo yaakaar ni que waroon nañ maa woo doon ay kilifa pour naan ma retireel plainte retireel lii retireel lële wallaahi du ñàkk kersa du bëgg a bon du soxor amul benn problème personnel entre man ak moom dafa di damaa war a sàmm sama der dafa di ngor ngor moo gën a foor bakkan réew mii ñu nekk avant diine di fi egsi ci ngor lañ daan àttewoo réew mii ñu nekk avant diine di fi egsi ci ngor lañ daan àttewoo te ku jàng xam ni que bari na lu diine nangu ca ngor nanguwu ko donc ngor moo ëpp moo gën a ndaw Ousmane Sonko nag deseetu ko deseetu ko parce que ci yëfi boppam nee na ñun dañ koo bëgg a toroxal mu woo ay doomu jàmbur